ñu ñëpp ñu ngi koy xool nag àdduna baa ngi gis le monde regarde ce qui se passe en Turquie c'est du n'importe quoi voilà deuxième partie bi comme ni ma leen ko waxee woon dañ koy jegleel suñu sept cent détenus politiques yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaso bi tey gis nañu El Malick Ndiaye génn na alhamdulillah gis nañu Biram Souley Diop génn na alhamdulillah mais ana Falidou Keita ana Falidou Keita ana Bassirou Diomaye Faye ana nit dof ana Abdou Karim Gueye ana Cheikh Baara Ndiaye ana ana ana ana sept cent détenus politiques Cheikh Baara rek au moins am na deux cent personnes yu ko mën a manifester ay taalube Cheikh Baara rek donc li ñuy def gars yi on va s'organiser et commencer à faire les manifestations partout dans le Sénégal ndax détenus yooyu ana Ami Dia waaw ana cet autre journaliste ana ndaw soosu suñu faala euh, fala faala fa fa faa ñaata sénégalais lañu ñu war a jàpp pour ñun ñu xam ne suñu ak ak seen yelleef ñu ngi koy violé Cheikh Omar Diagne keneen ak keneen ku lim juum Ibrahima Gueye nay leer suñu beneen frère ba la ñu ñu yàqoon place ñaata lañu Cheikh Assane Mbacké sëñ Assane Mbacké moom kenn waxatul waxam sëñ Assane Mbacké ana sëñ Assane Mbacké ak ñeneen ñaata détenu politique dang may na sëñ Assane Mbacké mënuñoo am cinquante personnes Touba yu ko mën a manifester kon masiba dal nañu dang may ne Cheikh Baara Ndiaye amuñu fukki personnes yu ko mën a manifester bépp détenu bu nekk ci kaso bi am na au moins fukki nit yu ko sopp yu ko mën a génnal loolu boo ko multiplier sept mille personnes la autorisé ou pas kenn ku ne ci gox bi nga ne war nga faa mën a génn nga manifester ñaawlu li xew ci réew mi ndax li xew ci réew mi dafa ëpp Macky li muy def ci réew mi ëpp na Macky li muy def ci réew mi ëpp na dafa ëpp ci suñu réew mi c'est trop ëpp na ndongo Diop ñeneen ak ñeneen bari nañu ils sont nombreux nee ku lim juum bari nañu dañoo bari ba mënuloo leen lim loolu ça devient dangereux sénégalais bu ne dafa am responsabilité ci génn ñaawlu li nga xam ne moom moo am ci réew mi waratuñ ko nangu ce n'est plus le temps de s'asseoir et de rien faire ou de ne rien dire nekkatul temps boobu fi ñu toll nii ci kenn ku nekk ci ñun dafa war a jël ay responsabilité am kenn ku nekk ci ñun dafa war a jël ay responsabilité am enough is enough dañoo war a continuer manifester sans arrêt ba ñu jàpp ñu ñun ñëpp wala ñu libéré ñëpp loolu mooy dëgg ñun naka lañu ñu mën a bokkee ci Sénégal di seetaan lii nga xam ne moom moo nekk di xew Sénégal actuellement gars yi li xew Sénégal dafa ëpp li nekk di xew Sénégal gars yi dafa ëpp c'est trop on doit pas l'accepter li nekk xew Sénégal c'est trop doomu sénégalais yi ñuy jàpp di leen emprisonné à quel pour lan lan mooy raison bi combien de sénégalais doivent être arrêtés avant que ça ne cesse ñaata doomu sénégalais lañu ñu war a jàpp pour mu arrêter mais arrêtons avec ça on ne doit pas l'accepter c'est inadmissible waruñu koo nangu benn doomu sénégalais waratul toog di seetaan ñuy kokkotal wala di tëj wala di toroxal ay doomu sénégalais loolu dafa war a jeex te ñun ñoo ko mën a dindi ah kenn ñu ko dindil ndax ñun saa bu ñu jëflante ak ñoom rek ñu dellu ginnaaw ay menaces c'est des réalités saa bu ñu jógee ñu dellu ginnaaw notre président Ousmane Sonko est séquestré chez lui et on est majoritaire naa le pays loolu naka ngeen ko mën a expliquer mais nañu jóg ci suñu gox yi chaque vendredi soir ñu préparé wu ñu waxtaane ko chaque vendredi soir ñu génn chaque vendredi soir ñu génn ba ñu bàyyi ñëpp ni ñuy jëflanteeg ñoom nag ñun ñoo ko xam chaque vendredi soir c'est nous qui contrôle le jeu ñun ñoo war a contrôler jeu bi c'est nous qui contrôle le jeu vendredi bu ne sénégalais yëpp génn chaque vendredi soir mais nga defee ne bu bu defee une semaine deux semaines trois semaines mais Macky day bàyyi ñëpp naka la ñu waree nangu loolu ñun naka la ñu war a toogee di nangu ñuy jàpp ay sénégalais yu deful dara yu waxul dara ñu jàpp leen di leen tëj ci biir ay kaso di leen torturer ñun ñu ne patt di ko seetaan mais on est complice parce que ñun lu ñu nanguwul Macky mënu ko def makki lu mu def ñun ñoo ko nangu Macky lu mu def ñun ñoo ko bëgg parce que ñun suñ ko bañee du am ñun suñu bañee Macky li muy def da koy arrêter immédiatement Quand on refuse, billahi wallahi tallahi Macky, Macky arrête. Si on refuse Macky arrête. naka la ñu mën a nekkee ci biir réew réew moo xam ne ñun ñëpp ko bokk ñuy seetaan Macky Sall il fait du n'importe quoi te kenn du ci wax dara kenn du ci def dara ajjuma bu ne sénégalais yi dañu war a génn manifester chaque vendredi autorisation ou pa ndax ñi ne ci biir kaso bi au moins kenn ku ne am na fukki soppe kenn ku ne am na fukki nit yu ko mën a taxawal buñ mën a amuñu famille am nañu famille pourquoi pas la la famille les amis tout le monde génn bañ mais loolu mooy dëgg mën nañoo bokk ci ab réew nekk une partie de ce pays nekk la majorité de ce pays ñuy toog ñuy seetaan Macky muy def lu ko neex sénégalais député assemblée nationale yi li ma leen wax démb wax leen ko barki démb moom laa leen di waxaat tey te du ay menace ndax yéen ñu nag yéen a dëkk xam ngeen luñu ñu ak lu ñu capable xoolaat leen seen taxawaay bu dul loolu dina leen coûter très cher àdduna yenn yi jaru ko de ngeen nga dem laal loo xam ne doo ci mucc moo leen di dal waa ji daan na leen ko wax toujours mu ne bu leen taal réew mi parce que boo leen taalee réew mi yéen ak seen njaboot doo leen ci mucc loolu la ñu bëgg ngeen xam Macky Sall ak Farba Ngom rek ñu ngi ñuusante ñoom ci seen biir donc yéen war ngeen xam ne Macky faalewu leen kenn ku nekk ci yéen di def yëfu maa tey walla yëfu je m'en lu la neex lu waay neex mën nga koo def waaye nanga nga bàyyi xel ne du menace de les mêmes gens les mêmes jeunes du Sénégal de fed up de des du ñu toogati di déglu kenn du ñu toogati di xaar kenn ku jëf danañu jëf ku jëful danañu jëf bàyyi leen loolu xel